alors euh, les violences au Sénégal loolee la euh, Awa Galas Mbacke di waxtaane donc euh, son invité est là comme ni ñu ko annoncé tout de suite dañu leen di bàyyi ngeen dugg ci waxtaan bi. effectivement Salma comme ni ñu ko waxee noonu la violence yi nga xamante ni moom moo xew ci Sénégal li tax ñu taamu sujet bi nag bokk na ci euh, seetlu bi nga xamante ni saa dañ koy def maanaam 30 ans avant li nga xamante ni daan nañ ko gis léegi ñu ngi koy faxal di gis bu baax a baax suñu biir société lan moo waxal jikkoy daal di changé mm-hmm. lan moo tax kenn mënatul muñ dara koo wax mu mer génnee paax daal di lay jam di wane fitna. guddi bëccëg ak ngoon mm-hmm. ba tey jii ñu gis yenn anam yoo xamante nit ñi xëy na ñu ngi koy euh, doxalee te amaana xaare wuñ ko woon mm-hmm. Sénégal parce que Sénégal ku xam Sénégal xam ne réewu teraanga la mm-hmm. réewu jàmm la waaye tey dafa mel ni jàmmu jooj dafa commencé di euh, wàññeeku nànk-nànk alors imam tey déjà boo doon def seetlu ci euh, fitna bi nga xamante ni saa su ne ñu ngi koy gis muy gën di bëri lan nga jàpp ni moo ko wundu tey jërëjëf madame Mbacké li nu gis te ñëpp ràññee mooy dañu gis ne violation moom dafa dafa gën a yaatu li ko waral nag lenn rek laa jàpp ne moom la manque d'éducation mooy dañoo yaratul ndax violence lu naturel la ci nit violence mënul jóge ci àddina dafa naturel dafa ànd ak doomu aadama ab jikko la bu ne ci moom boo xam ne bi muy ñëw da koy andi buy dellu da koy yóbbaale mm. looloo tax ñu indi yar mm. yar nag dañuy fexe neutraliser loolu di di defloo nit pour mu violent bakkan boobu loolu la ñuy yar parce que doomu <clears throat> ni ko yàlla bindee suratu suratu Shams sunu borom bi muy waat di wax yi mu bëgg a taxawal daa bokkoon ci li mu waat liy defloo nit tax mu nekk nit ku violent jikko bàyyi ma la nag dafa ni wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha daldi di ne qad aflaha man zakkaaha wa qad xaaba man dasaaha sunu borom dafa waat ne mu ngi waat ci bakkanu doomu aadama benn force la benn force intérieure ndax ñun buñ ne bakkan rek lii la suñu xel di daj waaye benn euh, force intérieure la bu ne ci nit di ko laaj mu di ko jox loo soxla ci bànneex loo soxla ci jëfandikoo nit te du jëmm booy laal loolu di ko pousser sunu borom dafa waat ci moom déjà loolu lim lay firndeel rek mooy lu am doole la ci doomu adama sunu borom ne loolu dafa ànd ak fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nee na bakkan boobu léeg-léeg mu pousser doomu aadama baax loo ko léeg-léeg mu def loo ko safaan léeg-léeg mu def loo ko li ñu tuddee kàccoor mooy fu fujjuuraha fa alhamaha mu yenkeewal ko mu puuse ko fujjuuraha wa taqwaha mm. léeg-léeg mu xirtal la ci mbaax ñëpp na ak a baax mm. léeg-léeg mu indi loolu jukko bu kenn xamul ñu ne comme gaynde mm-hmm. wa taqwa suñu borom nag ni qad aflaha man zakaha mm. ki texe ki am bonheur ki mucc mooy ki sellal bakkan boobu mooy ki fexe ba yar ko ba li nga xam ne moo koy pousser pour mu def lu bon mu maîtriser ko ba li koy def loolu baax mooy ëpp doole léegi loolu moo amatul ci société bi. loolu moo amatul ci société bi mooy fexeetuñu ba noot nit ki. Mhm. téye li koy tax mu poussé bay xeex di rey di jamaate di def lu mhm. loolu la nit ñi amatul jotu tarbiya ko. très bien alors yaa ngi koy wax léegi nee nga éducation bi léegi moo amatul. Mhm. te parent yi ñoo ñu war a yar. maanaam côté bu bot bi dañoo war a yar euh, xale bi nga xamante ni moom la ñu jur ba nga xamante ni du ëpp doole côté bu baax bi mais lan nga jàpp ni moo waral tey ji amaana parent yi ni niñ daan yaree démb tuñ ko tey. waaw ñàkk jot. ragal la wala voilà ragal la wala ñàkk jot wala xaalis wala lan daal mbirum jamono. benn amatuñu jotu toog di yar xale. Hmm. parce que yar dafa laaj temps ki ngay yar foog nga taxoo ak moom. foog ngay nekk ak moom foog nga di ko saytu te nit ñi amatuñu jotu toog dañuy daw vingt quatre heures sur vingt quatre ñëpp a ngi daw fajar ngay génn guddi ngay ñëw mm-hmm. kooku amoon temps wu yar xale en plus jàppuñ ne jàppuñ ne yar nit ki am na solo mm-hmm. dañ jàpp ni nit ki buy lekk ba suur di naan ba màndi di jàng di dem di ñëw di sol yére pour ñoom lépp c'est bon mm-hmm. manqué woo dara yaa ngi lekk yaa ngi naan am nga fooy tëdd yaa ngi jàngi école maa ngi fay lan moo des non li des ak a bari mhm. mooy nga tàggat jikkoom nga defar ko xam nga dañuy wax ne wala xad karam naa bani aadama maanaam doomu aadama yàlla def ko teddal mais kooku bu ñëwee ci kaw suuf bu ñu ko defarul teraanga jooju du fa nekk dëgg la du feeñ sax univers bii ñu nekk ñu tuddee ko laa terre sunu borom doomu aadama la ko dénk loolu mooy inna jaalnaaka xalifatan fil ard hmm. la terre jinne yaa ngi fi malaaka yaa fi bàyyi ma yaa fi njanaaw yaa fi nit ñaa ngi fi mais nit la yàlla responsabiliser na ko yow univers la terre yow laa ko dénk pour nga coloniser ko looloo tax doomu aadama nekk ci àddina bi di manipuler lépp mooy jëfandikoo lépp mais Serigne Cheikh daf ñu mës a def euh, benn léeb muy misaal ne doomu adama bi ko yàlla di fal ci àddina mboolem ñu postuler woon ñëpp a nangu ne doomu aadama rek moo àttan ñu jox ko univers bi mu defar ko te pour nga defar fii univers bi ñu nekk nit ngay defar mu defar li fi nekk. mu ne bàyyi ma yi bi ñu leen yëgalee ne dañuy tànn ki nga xam ne mooy sangu mbindeef yi ndëgment yi mooy gaynde segg tene saafaandu mooy rab yi faddaate. Mm-hmm. ñoom dañ na ñoom bu ñu demee doomaadama aadama la ñuy voteel bi ñu leen laajee lu tax mu ne parce que ñun. gaynde ne maa leen fi représenté mais dama yëg sama bopp ci doomu aadama ndax jomam mu ne doomu aadama dafa am jom ba nga xam ne boo ko tooñoo bugg ko toroxal sama jikko lay yor violence dugg na kon gaynde ne na moom loolu muy santiir ci doomu aadama bu meree kartam doomu aadama la ko jox pour mu diriger univers picc yi bi ñu leen laajee njanaaw yi lépp luy ñaaw bi petax ñëwee représenté leen bi ñu ko laajee kan nga yaakaar moom lañ mën a dénk univers bi dañuy doomu aadama laay voteel bi ñu ko laajee lu tax mu ne damay yëg sama bopp ci moom ndax dafa bëri yërmande ba nga xam ne xam nga pejax yi foo leen seen ci kaw ña ngay woy di siiñ mu ne doomu aadama da nga koy gis mu téye doomam bëgg ko yërëm ko di ko woyal moom kenn ci néeg di woy di kafa xale bi ngir yërmande mu ne loolu dama ci yëg sama bopp ci moom kadalika noonu la ko toppee bi ñu laajee malaaka yi malaaka yi ne ñun tamit doomu aadama la ñu soxla ñu dénkal ñu ko univers ndax ñu ngi yëg suñu bopp ci moom ci mën a jaamu yàlla sell gis nga wàllu tarbiya ñëw nee na doomu aadama ngay seen xaaju guddi mu sangu ba set sol yére yu weex tàll lal sijaadaam kàbbar jàkkaarloog yàlla di ko jaamu mm. malaaka yi ne ñoom image boobu dañ ci yëg seen bopp moo tax gëm nañ ne doomu aadama moo mën a représenté fii ci univers bi. sunu borom mi àtte ne doomu aadama la koy denk biñ ko laajee lu tax mu ne doomu adama ngay séen mu toog ci digg pénc ma ñu lalal ko séesam mu toog di àtte di àtte nit ñi ci dëgg te loolu loolu palaasu yàlla la. yàlla rek moo am kàttanu maaliki yow mi diin. alaysa allahu bi ahkamil xaakimin yàlla mooy àtte jaam ñu ku nekk lii la lii la mais doomu adama rek la ñu xam ci kaw univers bi. mooy toog di tëral ay àtte kii moo ni ci dëgg lii du dëgg cest à kon doomu aadama dafa nekk jëmm joo xam ne kenn xamul lu mu doon léegi nag bu ñu dellu si waatul yar mm-hmm. kilifteef bin ñu jox fii ci àddina lépp la ñuy perte. ci kilifteef boobu sax imam tey ji boo xoolee Sénégal nu muy doxee maanaam suñu ay kilifa déjà ñu ci bëri ci ñoom maanaam autorité yi njiit yi tey ji dañuy xool ni euh, dañuy jëfe li nga xam te moom mooy violence ba ci seen ay kàddu seen ay euh, jëfin est-ce que tey ji réew bu mel noonu moom nañoo xaar ci ndaw ñi ñu bañ a dox ci loo xamante nekkul fitna. waaw du yomb nag sénégalais moom naturellement sax da nga naan est-ce que du sénégalais moo violent. da ngay gis kuy tere mais bu la koy teree dalay lay violenté moom. dëgg la te pourtant dañ naan Sénégal réewum jàmm la. wallaahi ah. la. nit da lay tere dara di la violenté. pour nga bàyyi ko. te nee na day xeex violence de. <laughs> mais moom buy wax ak yow da pour nga bàyyi violence yow. cest à kon violence daa daa nekkul naturel mais buñ ci jëlul ay euh, matukaay day jéggi dayoo ndax bakkan moo koy defloo nit. ñan ñooy jël matukaay yooyu limite. premièrement waajur yi romb nañ leen deuxièmement état. troisièmement ñi nga xam ne yàlla dénk na leen baat ci diine ndax tamit ñooñu minimum am na ñu leen di déglu. Mm. ñoo xam ne buñ na ndeyjoor la ñu ne bismillah. Mm. même bu néewee buñ na càmmooñ la ñu ne bismillah ñooñu waruñoo noppi. Mm. nañuy insister rek di ñaax nit ñi ci jàmm di leen waxit njëriñ la. di leen moytuloo safaan maanaam def lu ñaaw rey dóor tuur deret faat bakkan. nga moytuloo leen. mais est que loolu dina yomb imam parce que tey dëkk bi léegi Sénégal pour nga wax fi dëgg déjà booy wax dëgg. Mm-hmm. nit ñi duñ la déglu. wala dañ lay jéem faagaagal est-ce que tey jii euh, taxawal fa loolu dina yomb. non du yomb àddina moom mën nga wax ne dara yombul. Mm-hmm. mais responsabilité yii nu séddale bu état bi defoon wàllam kenn ku nekk def lii la ci war mu jeex te man jàpp naa ne quatre-vingt-dix pour cent état bi la ndax moom rek la ñu jox ay moyens. pour mu mën a xeex loolu ñi ci des ñëpp amuñu moyen dañuy def ak seen bopp renouvellement mais état moom dañu ko jox ay takk der jox ko alal jox ko ay arme ne ko fexeel jàmm am kooku rek moo am légitimité dox jàmm fu ko neex. léegi état bu taxawee ne li fi amoon mois de mars dootu fi amati. Euh, am ñu taxaw ne euh, déedéet waay loolu kay euh, xanaa da nga bëgg na saxal démocratie est-ce que aussi. Euh, définition terme yi amul problème. waaw moom de bu fekkoon dafa wax ne li fi amoon dootu fi amati te mi ngi ko teg ci causes yi taxoon conséquences yooyu am. causes yi dootul amati loolu moom mën na ne mais bu dee causes yi mi ngi continuer di am conséquences yooyu dara mënul fexe ba du am loolu mooy li logique. mënoo causer ay violents ba pare conséquences yi du ñëw fekk si la. arme di indi jàmm gendarmerie mënul indi jàmm armée du indi jàmm police di indi jàmm ñooñu dañuy sabab lu jàmm mais jàmm ne léegi ñoom ñoo yore takk der yi ñoom ñoom la war a taxawal pour ànd jàmm déglul ñoom du ñu ànd jàmm déglul wax ji ñooñu dañuy sabab lu jàmm dama fa da nga dégluwul wax ji waaw ñooñu dañuy sabab lu jàmm pour mu am mm. mais lii tax mu am dëgg mooy ñu yéenante jàmm di wax jàmm di def jàmm ndax boo deful jàmm ci la gendarme bi di ñëw. policier bi ñëw violante la pour nga delluwaat ci jàmm jooju. mën na la violenté te du am jàmm de mën na la violante nga delloo ko ko. mën na la violenté am jàmm. mën na ko def it bañ a am jàmm. cest à ñoom dañuy sabablu jàmm ci mais jàmm ji dëgg ci dëgg lay tege. ak yéenante jàmm di wax jàmm. di jëf jàmm. yii bu dajewee foog jàmm am. kan moo newul ci dégg ci ci fu ñu toll nii waral bu ñu yegg fu ñu yegg nii. waa xam naa comme mbir yi dafa bëri bu ñu ci jëloon benn misaal mooy tane parce que fii li fi désordre daa bëri de. Mhm. secteur boo ci jël. am na fa ay injustice mais munoo global yëpp rek nga wax ne lépp lu am. opposition bi rek mooy responsable. wala lépp lu am état bi kese mooy responsable. mais mhm. am na ci ay euh, domaines yoo xam ne boo fa demee da ngay yëg ni fii nguur gi moo tooñ. masalan non am na ci yoo xam ne boo demee da ngay xam ni fii opposition bi ñooy tooñ. Mm-hmm. mais léegi nag yooyu foog ñu citer benn ci misaal nga ne. Mm-hmm. nangam ji doon am lan moo ciy dëgg ak lan moo ci nekkul dëgg. Mm-hmm. parce que li fi désordre daa bari de. Euh, par exemple euh, président bu toogee ne li fi amoon dootu fi amati. force restera à la loi. Euh, d'ailleurs sax manifestation yi man bëggatuma morceau bu xonk. bu waxee loolu déjà est-ce que loolu du andi du andi violence parce que opposition bi dina taxaw ne ah kii dafa mel ni dëkk bi moo ko moom léegi man d'ailleurs sax chaque semaine dinaa manifester mhm. parce que ci sama loi la lañ ko bind ci constitution bi lañ lañ ko bind sama droit la war naa ko mën a exercer tey jii est-ce que loolu aussi du andi rapport de force ci réew mi ok benn misaal la ngi noonu ci misaal tey munoo yore eh, nguur goo xam ne démocratie ngay doxal ngay ngay interdire ay euh, manifestation yoo xam ne amul benn menace mhm. déjà loolu yow boo ko defee violence bu fa am yow yaa tooñ. yaa responsable te léeg-léeg dañuy tere manifestation yoo xam ne amul benn cause bu tax ñu tere ko. Mhm. daf leen neex rek. Mhm. xale yi fippu xeex am après ñu ne xale yi dañu rew non mais ki interdire manifestation bi kooku moo tooñ jour boobu te kooku moo andi mhm. trouble à mhm. te li ma jaaxal mooy bu dee tey euh, président danaan am na yeneen dossiers yoo xam ne dama cey teg sama conc mhm. mu am yeneen dossiers yoo xamante ni sans aucune raison dañuy gis ni ko da koy yóbbu foo xamante sa yeggu fa est-ce que tamit c'est pas vouloir une chose et son et son contraire waaw moom de bu ko waxul woon sax man dinaa ko mën a tolérer mën na am ay dossiers yu mu teg loxoom te bu mu ko wax parce que état am na réalité jubluwuma réalité boo xam ne njuuj njaaj lay doon mais tey mën nga gis dossier yoo xam ne amulul réew mi benn benn njëriñ te mi ngi koy lool yow nga xool intére réew mi yow nga téye dossier boobu mais loolu boo ko waxee ci pénc àddina tukki mais nag bu mu nekk dossier yoo xam ne yow sa intérêt la mm-hmm. ou bien sa intérêt benn xarit wala sa intérêt benn mbokk déedéet mm-hmm. intérêt général moo aju ci dossier bii moo tax nga def ko nii. mais yu mel noonu peut-être du ñàkk ci àtte. bépp àttekat am na yoo xam ne boo koy jël war nga mesurer. lan moo ci intérêt général ci lii su ma ko tegee àtte bi yan conséquences lay juraat. léegi nag yooyu bu fekkee état mi ngi koy def mais bu ko waxee daan ne am na dossier yoo xam ne teg naa ci sama tànk nit ñi commencé di gëstu di xool durant li nga fi toog 10 ans 11 ans. gisuñu kenn ku bokk ci yow. koo xam ne duut nañ ko baaraamu tuuma ci alal ji nga jàpp ko amul. te ñi àndul ak yow képp kun ci tuumaal dara mi ngi ci kaso bi. mais dañ naan mais kon moom dossier yi mu teg tànk. Mm-hmm. mooy yi féete ak moom. te su boobaa kenn du ko mën a dindi parce que gis nañ ne ñi féete ak yow amul kenn kuñ mës a jam baaraamu tuuma ñu woolu la rek déglu la bu dee am na it benn lay doon wala ñaar. Mm-hmm. cest loolu moo tax wax ji erreur bu rëy la. Mm-hmm. jëf ji itam su fekkee intérêt général moo ko laloon te fooguma ko. parce que bu dee intérêt général la pour man. te est kilifa dëgg sax noonu la wax doxalee tey jii jàppoon naa ni kilifa boo nekkee sa nekk sa njaboot. Mhm. boo xamee ni lii xëy na bu ma ko yóbbee fenn mën na indi fitna est-ce que des fois du baax ñu jël loolu teg ko ci suuf pour mën a indi stabilité ci réew mi. ah bien sûr parce que itam nag. di topp benn mbir ngir benn nit ba lor ci ay nit est-ce que dina ko jar. imaam Shafii da daan wax ne. bidaa dee bidaa bu ñaaw lu bon la ci diine. Hmm. mu ne waaye boo fekkee benn biddaa bu sax ci barab ngay dindi bidaa bi mu ne nga natt ne boo dindee bi biyad bidaa bi soo ko dindee la muy jur mooy gën a garaaw bidaa bi nee na bàyyi fa bidaa ba ndax di dindi loo xam ne moo gën a oyof conséquences yi mu fiy fekk mais loolu yàlla sant la mm. daa am loo xam ne boo koy jël nga mesurer ko soo gisee ne li muy lor moo ëpp li muy jëriñ noo tegal ñu li muy jëriñ li muy lor mm-hmm. ngir ñu mën a am li nuy jëriñ parce que àddina xel mi yàlla jox doomu aadama pour mu balancer àddina rek la. mooy di xool lan mooy jëriñ lan mooy lor. Mm-hmm. te boo gisee balance de justice bi sax xëy na dañuy wax ni yamale la mais yamale goo xam ne itam fan la jàmm ji ëpp. Mm-hmm. fan la intérêt bi ëpp ci li ñëpp bokk nag. Mm-hmm. voilà mais bu mu nekk yow toujours bu mu dellu ci sa jëmm. bu mu dellu sa jëmmu famille bu mu dellu sa jëmmu xarit. waaw mhm. ah, ndax loolu moom intérêt personnel. mais awa mhm. euh, fii réew mi toll nii j'ai l'impression ko aussi dafa am benn fitna imaginaire wala violence imaginaire boo xam ne aussi dañ koy bëgg di ko installer au Sénégal am ay journaux yoo xam ne ñoom. Mhm. dañuy xaar rek opposition bi xëy na mani euh, annoncé manifestation pour ñu mën a ñëw. violence au Sénégal fitna au Sénégal bu ko defee tey jii ki nga xamante ni moom xalaat na ni war naa mën a jël soldaalam dem ci manifestation ma tranquillement mën a ñibbi si sax dina xalaat dina tiit ni mhm. wala ay mbokkam di ko artu naan ko boo demee foofu est-ce que doo fa ñàkk say bakkan alors que ce n'est qu'une simple manifestation est-ce que du fitna bi en réalité dafa nekk benn fitna imaginaire wala violence imaginaire bu nga xamante ni benn côté bi moo ko bëgg jël instauré ko parce que am na euh, série de manifestations yoo xamante ni annoncé nañ ko au Sénégal est-ce que gënul aussi ñu rafetal rek te waxante jàmm xam ne jàmm moo fi mën a xew autorisé yëf yi nit ñi dem ci tranquillement mais pas ñu bëgg a benn affaire instauré ko parce que am na lu war a xew bëgguñu loolu loolu am au Sénégal waaw manifestation moom ku ko bëgg a jëlee ci àddina fitna gu am ci àddina yaa ko indi manifestation ak nit dafa ànd hmm. nit bu la joxee nguur jox la alalam jox la léppam nga di ko defal mu dem ba gisu ci lu ko neex mu génn di la wax lu ma neex nga ne ko doo génn di ko wax c'est-à-dire alalam la la dénk de alalam hmm. manifestation kenn amul sañ-sañ ñu tere ko léegi nag su fekkente ne autoriser nañ ko te loolu ñun ñëpp dund nañ ko amul benn manifestation. man bi ñu autoriser mu am ay ñu autorisé mu am ay trouble ordre public amul exception sax amu ci. Mhm. te dañu gis ne nag yi ñu interdire yëpp quatre-vingt-dix pour cent. yëpp day am ay trouble après. kon est-ce que jotul aussi yéen ñi nga xam ne nee ngeen da ngeen di sàmm jikko yi. Mhm. par exemple ngeen wax artu ci sens boobu noonu pour ñuy autoriser li nga xamante ni suñu jaruñu koy autoriser sax maanaam bu ñu leen ko demander. ñu ñu ñu accompagner ñu. yónnee ñu takk der yi xëy na wala yónnee ñi nga xamante ni ñoo di ñoo organiser euh, manifestation takk der yi pour ñu accompagner population bi nga xamante ni ñoo nekk foofu assurer seen sécurité mais pas nekk fa pour dóor ay lacrymogène wala di euh, xoqatal ñi nga xamante ni ñoo di askan bi. waaw mais communiquer quoi dans ce sens. ñi ngi ciy wax mais xam nga Sénégal moo yàqu-yàqu goo xam ne yow en tant que nitu diine boo ciy wax te waxee ci nii xam lu ñu lay adressé. Hmm. kii politicien la ou bien dafa contre nguur gi. daa am fu mu far. daa fu mu far. dëgg la cest léegi li ñuy bëgg mooy même bu fekkee lii fi xew du dëgg. wax fi léegi dafa métti. yow bu fekkee nitu diine nga. Hmm. même bu dee du dëgg neel ah man daal dama ciy maandu rek. Hmm. loolu ak naa fexe la. bu dee du dëgg nee lii du dëgg du yoon nga pare ci. ki bëgg politique na dem xeexi ci terrain politique am mais heure bu ñu duggee ci foo xam ne du yoon ne la ah, lii ma gis day du dëgg du yoon te nii la war a jaaree. Mm-hmm. daal di dem nekk ci li nga parce que nag liberté ak indépendance kenn du ko may loolu la arab yi wax dañ ko mës di jël. Mm-hmm. manifestation bi julli di njëkk a def. ci mm-hmm. àddina ca Kaaba ga lañ ko defee. mais Kaaba gi dañ interdiroon yonent bi ñu ñëw di fa julli si. lan moo gën a garaaw loolu. julli di amuñ droit jàngal Alxuraan ci amuñu droit. julli fa ñuy dem ci seeni ruq di fa jullee seen kër yi bi Seydina Omar tuubee moo ko dindi ci force mm-hmm. parce que daana yonent bi ñun li ñu nekk dëgg la wala dëgg yonent ne ko lii mooy dëgg mu ne ko fa fii man ixfa mm-hmm. alas naa xalal la mu ne ko ko fipp fara ku fippuwul ci àddina bii mm-hmm. doo ma sa moom sa bopp ak nooteel neex na neex goo xam ne nit du ko def nit bàyyi ko mu dem nit a naan doy na gis nga sa doom bi ngay nàmpal sax boo xëyul ne ko feral du fer ki ngay boot boo xëyul na ko wàccal dox du wàcc dox c'est-à-dire nguur moo neex neex goo xam ne bu la ci nit xasee ngong tant que pare woo pour ne ko dindi ko du ko dindi mm-hmm. mais est-ce na wóor euh, la si jamono bi ñu nekk nii waaye xam naa dina si ah, ñëwaat ah, fitna mooy la pas fitna fipp la wax fipp waaw ay kon farata la bien ñu bàyyi la nga nuyoo <laughs> askan bi baax na le grand Théo. na mun nañ ko nag euh, plateau bi. Khoudos <laughs> euh, euh, Awa Condé ak yow Samba. mais da cee leeree sax ñëpp spectateurs yi. <laughs> waaw di leen wax nag tey nag fa yéene naa def bilan. élection de représentativité syndicale dans le mm. corps enseignant. moom laa war a def tey waxtaanee ko. Mm-hmm. lan moo ci suite logique. parce que tamit maintenant y a une nouvelle reconfiguration. Mm. du paysage syndical. ña doon toog am na ñeneen ñoo xam ne dootuñu toog. Mm-hmm. loolu yëpp ñu ngi si. dina tax tey ñu gën cee waxtaan. Mm-hmm. amoon na tamit loo xam ne jug na ci élection yi. am na ñu boycotté woon. Mm-hmm. loolu yëpp dina tax tey. ñu gën cee on va faire le bilan aujourd'hui mais namoon nañ la nag. waaw maa ngi yàlla rek. tane nga bu baax waaw tane naa bu baax. macha allah noonu baax na. ayca da nga nekkoon fu am. solo euh, euh, sañ baabaka parce que mu ngi lay naan fipp fitna. Mm-hmm. xëy na nga leeral foofu rek. xam nga ñun Sénégal léegi dañ ñu tiital ci baatu fitna ba nga xam ne. léeg-léeg nga gis koo xam ne. xeex fitna nañu xeex fitna te moom ku ko gën a nekk nitu fitna ci àddina amul. Mm-hmm. loolu nekk c'est-à-dire fippu mook doomu aadama ñoo ànd koo gis mu naan damay fipp c'est parce que dañ ko noot. Mm-hmm. mais bu ñu la nootul doo fipp fii nga toog nii ma toog nii man su ma toogoon di fequ naan damay génn. mais dañ naan ma yow est nga lan ngay fequ la fekk nga yeew ma moo tax may bipp. Mm-hmm. pour génn ci li nga ma yeew. loolu mooy fipp nit ku ñu yeew la muy fipp pour génn. Mhm. mais ki yeew lu mu di ko yeew doomu aadama la comme yow. Mhm. nga bëgg ko yeew def ko sa jàmm. di ko imposer li la neex yow. pas li nga xam ne mooy seen intérêt yéen ñaar mu ne noonu lii du ko daw. Hmm. wax naa léegi ne bu demee ba julli di juddoo màkk yaroo màkk yonent bi nga xam ne léppam màkk la musul woon tukki sax benn réew bu dul màkk nga xëy ñu ne la amoo droit accès ci kaaba gi. ay nit di yëkkati ay xërëm di teg ci kaaba gi heure bu leen neex ñu ñëw di julli def seeni njaay def yëpp yéen ñu ne du ngeen fi ñëw parce que ay jullit ngeen kese. Mhm. mais loolu ku ko mës a gis. te loolu daf ko dund ay at mais bi Seydina Omar ñëwee. Mhm. dana gis nga lii man du ko seetaan man Omar. ida kunta fil am fakkun fii mu ne mbir boo ci nekkee bu ci nekkantu da nga ciy nekk ba ñu xam ne. yaa ngi ci man bi ma nekkee ci yëfër ñëpp xam ne Omar yëfër la. ma mhm. nekkee jullit ñëpp koy xam. keroog la jullit yi njëkk a génn daarul arxam dox def manifestation. dem ci kaaba ga di nodd ci kaw li ñu fa doon tere keroog la lépp jeex wa bi nabii aslama al faaruuxu thumma bihi kaana al xuruuju li naxwi masjidil xarami sa xaaj Maalik woy na ko ci xilaaw du dahab nee na li njëkk a génne jullit yi ñu def manifestation sax la wax dox yegg ba ca kaaba ga taxaw fu wër ba doyal noddu mooy keroog bi Seydina Omar ñëwee tuub ne kenn doo ci ñu tëj ci kër yi naan bu ngeen di julli ci kër yi ngeen di julle mhm. su ngeen di nodd ci kër yi ngeen di nodde bu ngeen di jàng alxuraan ci kër yi ngeen ko den defee te ñun ñëpp ñu bokk pénc mi ne loolu day jeex mhm. te keroog bi ñu ko defee keroog la jeex d'accord kon mais li ngay li exemple bi ngay joxee ni on n'est pas dans ce contexte là mhm. bu ngay wax ni fii euh, euh, fipp farata la waaw mais xam nga contexte booy jàngale mën ngay joxe exemple sax ci Japon mën nga joxe exemple fu la neex. mais kiy dund réalité yi moom mooy xool waxtaan bi moom. lan mooy réalité Sénégal lan la mën a déggee. ba nga ne mais xam nga yow ñu ngi doon wax ci interdire manifestation. waaw loolu mooy indi exemple bi. pourquoi interdire manifestation. yow mës nga gis président ak euh, partem dem di rassembler fenn ñu leen di interdire. te moo tax ñun ñoo bokk penc autorisation mhm. sax. ñun ñoo bokk penc mhm. lan moo tax ñoom fu ñu bëgg a dem dem fa du am benn problème. Mhm. sa parce que ñoo ne ci nguur képp ku fa nekkul fooy dem da ngay ñëw di yalwaan dama bëgg def lii dama bëgg mm. manifester. te sa droit la yow benn doxandéem nga ci réew mi. c'est-à-dire mm-hmm. loolu mooy indi nit ki di fipp yooyu. daa war a mais mais que solution parce que l'islam sax santaanewul lool ah. dafa am yoo xamante ni bu la méttee da nga koy nakkarlu sa biir xol. Mm-hmm. boo ko mënul nga wax boo mënul nag nga dem si dernière étape bi. waaw mais bu dee wax nga ba sonn faale wuñu la. waaw. am na si moo daan wax ne nañ bàyyi gars yi di wax parce que nee na wax ji nit ñi di wax. Mm-hmm. mooy fuurit muy génnee ci cin li nee cin boo ko taalee ba muy bax nga tëj ko mhm. nee na buy bax day fuur mhm. soo tëjee kubéer gi bañ ko tijj day tuur mhm. taal bi lay fay mu ne da ngay xëcc kubéer gu tuuti mu xaw a ubbeeku mu am air tàngoor bi di génn cin li liy bax du mës a génn cin li mooy am réew boo ko yoree dangay ubbil nit ñi ay porte pour ñuy wax li leen metti metti am na ñoo xam ne bu ñu amee leen naqari bu ñu génnee wax ko pare nañ ci mais boo ne ko doo ko fi waxee mais tey liberté d'expression aussi amatul ci réew mi parce que journaliste bu bu toog sax euh, waxuma liberté d'expression sax mais liberté de presse mhm. liberté d'expression même liberté de poser une question sax ah, euh, tey ji <laughs> dañ ko dañ ko dañ ko nasaxal fii au Sénégal donc tey ji on peut dire que cin li moom waxuma tëj rek mais dañ ko tëj ràpp fi mu ne nii kenn mënatul kenn mënatul kenn mënatul waaw man nag loolu ñi ci nguur gi laa ci gën a tiital man euh, alir bii ma gis nu jël man dama ci tiit pour ñoom ndax benn gis naa ku fi posé ay question kilifa la Hadjibou Soumaré mhm. déjà mu ngi contrôle judiciaire mënatul génn réew mi mhm. mënatul wax ci jugé boobu benn ci laaj rek day laaj mhm. gis naa ko partagé ay reetaan ñu tëj ko ci kaso bi. presque 6 mois ñoom Ousmane Diagne d'être am humour sax fi ne nii dañ koy tere ci réew mi. en danger. te yow nga xam ne yow lii nga yor. doon na ko barki démb nga ci jot. bay jógee ci sa loxo par A ou nga war fi jógee ñeneen ñëw toog fi mm. nga war a nekkaat ci terrain bi di politique président Macky Sall moom xëy na bu jeexalee mën na dem de mais ñi ànd ak ñoom ñoom dañoo am intérêt toog ci réew mi di défendre seen parti mm. ñooñu ñoom ñi ngi xalaat ëllëg bu keneen ñëwee ci réew mi di leen xaar fii lii ñuy def loo nit ñi da leen boo ne oxo sax ñu ne la justice a ci kaay dem toog mm. xëy na dañuy waajal ki leen war a wutu mu nekk si ñoom koo xam ne si seen camp bi la joge wut leen peut-être que si y' par danger est-ce que loolu la ñuy waajal aussi. ah mais erreur bi gën a rëy. attention à une chose. Yaya Jammeh était là. Hmm. quand il que. mépp bu ñëwee mu ne waa kii mooy dem élection baro. Ah. quelqu'un peut sortir de nulle part. Hmm. mu ñëw. Oui. les gens doivent penser aucun règne éternel. seul le pouvoir de Dieu est éternel. Hmm. il faut que les gens sachent raison garder. Mm-hmm. ces politiciens na le Sénégal n'appartient pas à ces politiciens. Mm-hmm. ils doivent respecter les citoyens qui les ont élus. on avait élu démocratiquement Macky Sall de la même manière s'il doit partir ou s'il doit continuer son parti ou bien son régime doit continuer. Mm-hmm. de la même manière ils doivent laisser comme ça le pays. il ne revient pas aux politiciens de nous diriger on les a simplement confié notre pays. mais il ne faut pas qu'ils nous dans cette dans dans cette aussi lenn moo am mënoo toog nga ne ci kujjee politique bi man kese maay dem ku àndulaa man ma tëj la kaso loolu moom d'accord uñu man mhm. man personnellement man maa ngi koy wax on t'avait pas élu pour ça mhm. parce que yow bul fàttaliku am na yoo xam ne dara jaru fi fàtte fii le 2 janvier fii pikin ba nga bañee ñu ne waa PDS ne doo def sa meeting police bii tey nañ ko fàttaliku par le commissaire Ndiare Sène ku ku ma weddi na ñëw teg fii duñ ko weddi waa APR. Mhm. moo leen escorté ba bayal CFA pour ñu def seen meeting. Mhm. Macky dem moo Ndiaye teeree jàmm gën si Kambaw moo ne woon le Sénégal n'a plus d' administration xam nga boobu ndax leen je rends hommage au passage au préfet Pape Fall parce que moom dafa jotoon ay instructions ne bu ñu bu ñu signé autorisation bi le préfet sous préfet de la Thiaroye il est à la retraite. pour que ne policiers yi bàyyi kii day def meeting terrain bi moom boobu xam la la wax. le Sénégal n'a plus d'administration. il se est-ce que est-ce parfois je me demande est-ce qu'il se rappelle de ces de ces propos tu parles de qui Théo là du président du président Macky est-ce qu'il se rappelle de ses propos en disant que le Sénégal n'a plus d'administration. il le disait à l'époque. man j'ai j'ai un problème aujourd'hui c'est cette même administration. moom lay vanter ne leen leen protéger donc parfois. il faut que je dis que la classe politique mais je me demande est-ce que tu que il faut que la classe politique y compris ñoom ñi nekk pouvoir. Mm. qui sache raison garder fii dara jaru fi fàtte. Mm-hmm. dara jaru fi fàtte les maisons de presse yi ñu doon ñëw fii di rase pour wax mm-hmm. tey nga bëgg leen xeex loolu soxlewuñu ko ci réew bi. le Sénégal n'a pas besoin de retourner cinquante ans en arrière on n'en a pas besoin eh, on a besoin d'avancer ñu dem ci leneen mm-hmm. développement koom-koom loolu lañ soxla mais chaque jour ay affaires yu ñàkk fayda yoo xam ne amul bopp amul génn et puis li gën a bon nag mooy leen ku farax yow na toog saaga ku ko neex kenn du ko kenn du ko def dara mm. am na ku taxawoon fii Mbàkke fii ne nañ dem taali wal fajri est-ce que benn juge mm. convoqué kenn ko je cette question mm. parce que il faut pas que aussi qu'on nous indexe vous êtes des opposants mais soyons francs on a entendu tous man dama ko dégg juge dégg na ko. Mhm. ñëpp toutes les autorités judiciaires ont entendu cette personne n'a jamais été convoquée jusqu'à ce jour. Mhm. alors pourquoi une autre, personne dangaa retard rek ñu jël na yóbbu la kaso. c'est ça ce ça ce ce sont des choses comme ça parfois. Mhm. qui qui frustrent. donc il faut que ñoom que soit y a un marabout sëriñ euh, guide religieux sëriñ Goro wax na keroog. la stabilité du pays. est actuellement entre maire de la justice. Hmm. attention. ayca pour terminer waaw président laa doon jeexalee sax mooy. Hmm. erreur bi gën a rëy mooy. ñu bëgg a def ci bopp président Macky Sall. que moom mën na tànn ki ko fii wuutu. Hmm. loolu na ko génne ci boppam de. moo taxoon ma la koy laaj. voilà loolu la moo tax ma téye question boobu moom buñ ko gëmloo ne mën na régler ginnaawam ñu ngi koy nax. nguur yàlla mais am na droit quand même tànn euh, ki ki ki war a nekk candidat au non de son parti. waaw xam nga choix ngay def. Mm-hmm. mais imposer nit ki nga bëgg a tànn c'est-à-dire ah, diw du bokk diw mooy bokk loolu war a dem présidentiel. il sera candidat au même titre que les autres peut mm-hmm. bu amoon sagoom dëgg lu ko neex. Mm-hmm. Abdoulaye Wade du ko doon. dëgg la neexu ko de. président Abdoulaye wat bu amoon li mu bëgg dëgg. Macky Sall du ko wut. président Macky Sall. xamul ku koy wuti de. xamul ku koy wuutu même bu defee ay tig tagam. qul lillahumma maalikal mulki tu'til mulka man tashaa'u. wallaahi sunu borom nee na nguur maa koy jox ki ma soob man. Mm. wa tanzi'ul mulka mi man tashaa'u. maay foqati nguur ci ku ma soob. Mm. c'est-à-dire mën nga tànn nag. nga def su àndee su ma sañoon diw mooy dem. Mm-hmm. sénégalais yi la bëgg ku ma naroon a votel voteleel diw. Mm-hmm. mais def say loi di teg. di rocc ay nit kii du bokk kii mooy bokk parce que kii laa bëgg mu wutu ma soo moytuwul mbir ma dana mujj albatiku la daloon na mhm. moo lay mujj daal mooy firawna dafa nekk di tic tac sunu borom daf ko mujj suuxal ci géej gi. Mhm. demin bu ñaaw boobu. Mhm. na ko moytu. te loolu moom. jàpp naa ne réew moo xam ne dañ la ko dénk démocratiquement mhm. soo koy joxee joxe ko démocratiquement rek mooy ubbil jeu bi ku bëgg bokk na dem bokk mhm. ku sénégalais yi wóolu ñu tànn la parce que ñoom ñooy dénkaane lan mooy taxawaay ànd sàmm jikko yi justement ci appel manifestation yi ñu mhm. amal 14 euh, 15 ak euh, peut-être procès bi nga xam ne moo war am le 16 man jàpp naa ne benn tension mën na bañ a am ci kaw ñu autoriser manifestation bi déjà bu tey bi dégg naa autoriser nañu ko. macha allah nañu leen autoriser ñu def seen manifestation. Mhm. pneu du fa tàkk. Mhm. parce que parce parcelle dafa sori Dakar aussi. waaw ba tey baax na rek. comme ñoom foofu yëg nañ fa seen bopp seen lieu bopp. nañu dem oh, parce que xam nañu bu ñu tànnee fële dañu leen naan ay chantier BRT te foofu moo mhm. gën a euh, jege aussi bon symboliquement. après nañ jàpp ne. waaw mais loolu baax na ci opposition bi ñoom it. ñuy xalaat loo xam ne sëñ Abdoulaye moo daan wax ne. nee na ànd ñaara koy yàq. Mm-hmm. tegee lu mënul nekk mbaa nga gàntu lu mën a nekk. Mm-hmm. ñaar yi mooy yàq ànd ñoom xam nañ ne buñ ko tegee dakaar mm-hmm. non du mën a nekk. coow lee bare rek mais du sotti. ñu indi ko fii te seeni nit dinañ leen fa fekk nañ leen bàyyi ñu def ko. la 14 bu ñu def manifestation. nañ leen bàyyi ñu def manifestation. le 15 le le 15. la 15 la quinze bu ñu def manifestation. nañ leen autoriser ñu def ko. conséquence bu ci am bu ñu paree nga woolu leen. au moment yi ñu koy def sax bu leen wóolu. mais ki woote nee na avec ou sans autorisation Ousmane Sonko. waaw mais loolu loi la ñoom ñoo bind. loi constitutionnelle xam nga Abdoulaye dafa nekk. da ngay yëgle victime yëgle rek la. Mhm. victime ci ñu koy interdire ci ay manifestation mhm. laay wàdd ne su ma yéegee lii day jeex bi mu yéegee mu def ko loi ne léegi au lieu ñu lay ma autorisation dangay ngay déclarer rek ñu ñëw encadrer la mais mhm. loolu mënoo ko def loi ba pare. daal ne nit ki bon yow pour nga def manifestation foog mu neex ma. très bien alors imam de façon général lan nga mhm. jàpp ne loolu la ñu war a def pour quand mën indiwaat jàmm ci réew mi indi stabilité ci réew mi parce que tey jii booy xool dañ naan tout le temps l' état reflet de la société est ce que nekkul ci biir kër yi la ñu war a commencé defaraat jikko yi ba nga xamante ni li ñu nam ma gis ci kaw dinañ ko mën a jis ci suñu ay njiit. loolu dëgg mais xam nga way jur yu bëri dañu démissionné way jur yi bi ñu fayitee seen i responsabilité yàgg na. wax nañ ko ci ndoorte bi mooy talatuñu njaboot kenn talatul yar mais est-ce que pauvreté quand même euh, ñàkk gi waaw ñàkk ci la bokk ñàkk ci la bokk mais nag ñàkk moom du tere nga yar sa njaboot waaw ñàkk moom terewul nga yar sa parce que mag ñi yoroon nañu njaboot goo xam ne amuñu lu ñu lekk mais mhm. daan nañ fexe ba def ci ñoom ay jikko yu baax mhm. ci mën a muñ parce que tamit man awma rek ma jaay sama ngor mhm. mais du noonu cest à nit boo ko yoree loo ñàkk-ñàkk toogal ak sa doom. di ko yedd di ko delloosi di ko corriger ba jikko yu baax yooyu des ca moom bu bu ëllëgee fu mu mën a nekk lu mu mën a ñàkk te ñàkkul dignitéem du yëg na ñàkk na dara. Mhm. Mhm. mais malheureusement loolu du ma wax ñëpp nag mais lu bëri ci parents yi daf leen rëcc. Mhm. ñu daw di ko dabu ji ci éducation ba nekku fa. ñu ñëw ci mbedd mi mbedd moom kon a xam ne du place bu nuy yaree nit état bi ñëw indi fay takk deram. duñ la yar dañ lay toroxal te montant dañ ne maison dare et de correction. Mhm. mais boo fa demee dañ lay toroxal mais duñ la corriger parce que nit ki mën nga ko corriger sans nga toroxal ko. gis naa ay nit yu génnee kaso ba taay ñëw ne boo fay dugg dañ lay simmi dañ lay violenter dañ lay toroxal mais loolu ci corriger nit ki pour la am na koo xam ne jour bi biñ ko njëkkee jàpp bi mu duggee rek. yedd na boppam déjà bu dee moo defoon erreur. Mhm. mais kooku da koy accompagner ak ay wax. moraliser ko xamal ko njëriñam ba yow dina la rus sax yow ba respecté la ba bu ëllëgee dootul defati lu ko indeeti fii. Mm-hmm. mais bu fa ñëwee nga saago ko. traité ko tous nos d'oiseaux mm-hmm. mais après moom day wax ni kii respecté wu ma sax moom dootu la respecté parce que respect partage la mm-hmm. ku nekk da jox sa morom cër c'est-à-dire kon ci côté yëpp am na ay failles mais man jàpp naa ne nag fii ñu toll état bi mën na fexe ba jàmm am mooy na wàññi yenn interdiction yi manifestation wala rassemblement jarul interdire parce que gisaguñ ci benn conséquence. su doon def nañ ko di fa taali pëna di toj ay oto jàmbur sénégalais yi seen bopp ñooy njëkk a wax ne état bi bu seetaan lii. Mhm. mais vraiment man gis naa ne opposition bu civilisée la ñu am. heure bu ñu leen mayee manifestation dañu koy def ba mu jeex. forcé ñu muus dem seen yoon ku nekk dem sa. Mm. Facebook reetaan kafre mu jeex. mais manifestation yi léegi xam nga Salma mi ngi koy wax sànq xëy na dañuy jël benn imagination mais des fois lu lu am lay doon. Mm. parce que tey jii ku nekk ragal nga sa doom dem manifestation ndax gis nañ ni léegi ku dem manifestation mën nga see ñàkk sa bakkan wala nga jëlee si ay gaañu gaañ yoo xamante ni doo xam foo koy waxee. est-ce que tamit des fois duñu xoolaat état bi donc dafa neex état parce que. Mm. yabaate mi ngi yem ci nit dugal euh, déclaration de manifestation une semaine avant. nga mm-hmm. ko ba la nga ne ko suba mën nga ko def waa ji war a jël ay bâche monter matériel. Mhm. lijjanti lu nekk nga xaar bañ na suba la ci guddi nga génne ko ne ko waa léegi autorisé naa la ko. Mhm. cest à loolu mooy da ko bëgg a pousser pour moom mu fipp sa kaw nga ne voilà gis nga lii moo tax ma di ko tere. Mhm. yow yabaatal jox ko ko 24 heures avant wala 72 heures. mu mën a préparer boppam. defar matériel am. ñëw na bind na kayit signé na. mais kooku nangu na sa kilifteef tan dafa am kilifa yoo xam ne ñoom dañ jàpp ne pour ñu wan la ñoo la yilif mm. foog ñu tere la quoi jaay doole c'est vrai mm. mais ki jóg ñëw ba ci bureau préfet wax ko li mu bëgg mm. lii laa bëgg mais kooku reconnaître na sa kilifteef mm-hmm. nangu na ko parce que ñëw na ba ci yow mu présenté wu deux personnes ngeen bind mu signé wax la li mu bëgg heure tel fii laa bëgg mais loolu doyul ci kilifteef mhm. léegi yow pour nga gën ko wan ne ko maa la yilif mhm. foog nga tere ko daal pour wan nga ne ko maay sa kilif wala pour gën ko wan ne réew mi maa ne woon ñaata yooyu dafa dañuy fàtte les hommes passent les institutions demeurent préfet yi suba da ngeen retraité ah mhm. leen <laughs> def rek suba da di retraité donc yéen bokk jotaay ak ñenn ci askan bi mais xooleen loolu après lu ñuy xoolee seen njaboot yéen tamit bi yoree yenn poste yi ak yooyu. toujours loolu da leen ko xalaat. c'est important et puis opposition bi aussi na jàng ci lii parce qu'on qu'on a vu Macky Sall opposant et Macky Sall président. on mhm. espère juste que ñoom aussi euh, euh, euh, injustice wala li nga xamante ne moom lañ leen hmm. nekk di leen teg. ak gaa buñ buñ bis hmm. bu ñu ñëwee. Hmm. tey au pouvoir lii nañ fexe nag ba askan bi doon ko jooy. buñ ko defee askan bi taxawaay bi parce que nag dañoo sonn ci defoon nañ moo ko ñëw naa au pouvoir au lieu nga changé. nga fay continuer ci même piste boobu noonu ñu nekk. waaw parce que ñoom it loolu bu dee jàngee wuñ ko ñu yaakaar ne Sénégalais yi dañ leen a bëgg nii fal leen contre Macky Sall kese non wallahi gis nga opposition bii fi ñëw mm-hmm. nga tàmbalee ko ci Ousmane Sonko Barthélemy Dias Khalifa Sall ku la neex mm-hmm. nii leen Sénégalais yi di xaw a yërëmee mm-hmm. na ne Sénégalais yi même position bii la ñuy am ak dafa naturel ci loolu buggul kuy noot ay doomu mais loolu du personne nit ki ci boppam dëgg gi moo leen yitteel loolu ñoom foog ñu jàng ci leçon yooyu d'accord mais awa tey ji dafa mel ni euh, na ci sénégalais yi nga xamante ni euh, dañu yaakaaroon xëy na ci kilifa diine yi. pour ñu andi euh, stabilité ci réew mi de par ni ñu doon doxalee et tout mais dafa mel ni yaakaar boobu jamono ji dafa commencé rocceeku nànk-nànk. lan moo koy expliqué kilifa yi tamit nag ñoom seen bopp rek la ñu am parce que fi bi toll da ngay wax boo waxee.